asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq te di leen baal te di ñaan yàlla buur bi baalu ñu baal sàmmal ñu boppam aaral ñu boppam musal ñu ci seytaane ak ndog-ndog te di wax ni naafile yi yàlla bu mu nekk suñu mujj dëndeel naafile waaye tamit koor gi yàlla bu mu nekk suñu mujj dëndeelu koor daanaka mën nañ ne ñu ci càppaa yi waaye ba léegi rek nañu jàpp te góor góor lu baax te sax koor gi bu jeexee. ñi continuer du baax di naafile ndax kat lu am solo la tey jii dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di naafile du jour du vingtième nuit nekk huit rakk quatre sëlmal ginnaaw faatixa bi yéen a ngi ci teg benn ina anzalnaahu ak ñetti xul huwa allahu ahad su ko defee dañ koy baamuwaat tey naafile du di vingt vingtième nuit bi juróom-ñetti rakk la ñeenti sëlmal ginnaaw faatixa yéen a ci teg benn ina anzalnaahu ak ñetti xul hu allahu ahad yàlla nañu yàlla loolu sutura te yàlla nanguñu suñu jaam yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu